ci tabaski bii ki nga xam ne mooy Thioub Guèye ak maanaam waa Thioub famille yi defaat nañu beneen geste boo xamante ni bu am solo ndaxte rek nag ay xaru tabaski yu bari la ñu jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy néew di doole yi waaye ginnaaw loolu it nag li nga xamante ni mi ngi jëm ci wàllu soble ak pomme loolu bokk na ci li nga xamante ni dañ koy jox ñi nga xamante ni ba tey jile rek nag di ko joxe ci prix boo xamante ni amul fenn ba tax na askan wi ñëpp daal ñu leen di remercier ci li nga xamante ni mooy geste bi nga xamante ni dañ koy amal

ak ci bu gay ak ci bu yi nga jàpp naa ne daal nekk nañu ñoo xamante ni tey suñ doon ñu bari rek ci biir département de Mbour jàpp naa ne kon kenn du am li nga xamante ni moom mooy ay jafe-jafe ci li nga xamante ni moom mooy wàll woowu waaye lu ci mënti am daal jàpp nañ ne seen taxawaay ci li nga xamante mooy tabaski bi ñi nga xamante ñooy askan wi rafetlu nañ ko bu baax a baax